waxtaanee droit euh, violence euh, conjugale euh, mooy sujet bi tey mooy sujet bi tey Pape Cheikh euh, donc euh, demoon nañu seeti benn avocat juriste nekk euh, AGS mu tudd Nafissatou Seck mu defaral ñu benn élément malheureusement c'est pas disponible mais juste on va faire un résumé de li nga xamante ni moom la ñu fa jëlee donc moom nee ñu que violence conjugale dafa am façon violence yu bëri donc am na ci boo xamante ni moom mooy violence physique violence physique nag li koy màndargaal mooy ni que nit ki dafay am ay preuves physiques maanaam day am ay séquelles yoo xamante ni violence bi koy bàyyi ci moom mun na nekk ay cicatrices mun na nekk ay marques mun na nekk loo xamante ni daal nit ki da koy teg bëtam bu fekkee xeetu violence boobu noonu nit ki da ko subir moom certificat médical wala ay témoignage dina doy ay preuve pour mu dem porter plainte beneen violence bi nag mooy violence psychologique violence psychologique boobu nag mooy bi nga xamante ni moo gën a nakkaree prouver donc euh, d'habitude bu fekkee nit ki daf ko subir nu mu koy euh, mandargalee pour mun a porter plainte il faut mu am témoin boo xamante ni da ko fekkee donc si violence psychologique nag yamul rek si ci euh, métital wala kii menace si la bokk injure si la bokk mépris si la bokk euh, déni dénigrement si la bokk maanaam nga yor sa soxna wala nga yor sa borom kër di wax lu ñaaw di ko yàq wala di wax loo xamante ne yooyu yëpp ay forme de violence la wala nga wax ko wax boo xamante ni bu tëddee dina ko tere nelaw loolu yëpp si forme violence euh, psychologique la bokk beneen forme violence bi aussi mooy abandon de famille c'est-à-dire nga yor sa jabar wala nga nekk ak euh, say jabar dëkkaloo leen metro leen dans de bonne condition ñuy toog lu yàgg duñ la gis nga laisser leen à eux-mêmes loolu aussi façon de violence la forme de violence la mm. ak bi si mujj muy violence sexuelle maanaam ngay sekk ak sa jabar wala ngay sekk ak sa borom kër di ko def si anam yoo xamante ni contrainte da ciy am wala nit ki bëggul wala nga koy gaañ yooyu yëpp forme de violence la li liñ ci mën a retenir aussi mooy ni que avant Sénégal Euh, violence conjugale jëluñu ko woon en compte c'est à partir de 1999 lañ commencé di condamner nit yi nga xamante ni dañuy def euh, violence conjugale donc bu fekkee nit ki nag def na violence conjugale muy góor wala muy jigéen peine bi ñoo yem ça peut aller de un à cinq ans de prison maintenant peine boobu nag mun na évoluer su fekkee ki nga xamante ni dafa subir violence bi def si jëlee li nga xamante ni mooy handicap wala séquelle wala euh, mu am si gaañu gaañu yoo xam ne dafa mujjee indi bëgg dee donc bu boobaa euh, conséquences yi dootul yamati ci peine de prison boobu nga xam dañ koy juger selon que euh, répercussions yi nga xamante ni moom moo ci am donc Pape Cheikh euh, loolu lañ ci indi woon juste rappeler que li nga xamante ni moom la juriste yëpp di xeex mooy violence psychologique bi nga xamante ni pour nga indi ci preuve dafay xaw a metti te nit yi aussi duñu def li nga xamante ni moom mooy di porter plainte mais c'est la mais su fekkee for violence dañ koy jël. Mhm. su fekkee ci violence conjugale ay texto wala enregistrement il faut des yëpp dinañ ko dinañ ko jël mhm. parce que forme de violence la boo xamante pour nga nga prouver ko ah voilà c'est dur à pare souvent may mun a man li may seetlu fii da ngay gis koo xamante ne dafay nekk victime de violence conjugale mhm. léegi bu demee ba porter plainte mhm. poids wu société bi yëpp tuuru si kawam c'est-à-dire même ses parents lui disent que demal nga retirer plainte bi amuloo droit porter plainte contre sa jëkkër xam nga lan ngeen njëkk a génne seen lan ngeen njëkk a génne seen xel violence conjugale rek yéen mais en général c'est ça ñëpp la góor la ak jigéen mais le truc c'est que c'est beaucoup plus rare chez les hommes. quoi qu'on puisse dire man y a pas de y a pas d'exception y a pas de beaucoup plus. amul exception violence violence c'est vrai des femmes qui sont violentées. c'est vrai mais vous les femmes sexistes vous êtes. <laughs> quand on parle de violence faite aux femmes rek vous dites rek rek seen xol yi day tàng parce que da ngeen di wax. non non en fait le truc c'est que bu jigéen ñi moo gën a bëri góor yi c'est vrai que même bu dee dañu gis góor boo xam ne dañ koy violenter association des maris battus. soo ko waxee fii nit yi ay ay reetaan moo leen di jàpp et pourtant ça mais le truc c'est que jigéen moom moom mooy gën a ñàkk doole ci couple bi et souvent moom mooy gën a nekk victime de violence loolu moo tax boo ko waxee rek xelu ñëpp ci jigéen lay dem mais il faut que tamit seen parents yi mun leen soutenir ak seen entourage parce que souvent ñoom ñoo lay wax sax mm-hmm. euh, bul ñu may woy ak bul ñu may rii rek sa doom yi dañ leen koy wax ak te parfois di nga gis koo xamante ne jëkkër bi mooy dem ba ba ko après c'est trop tard. wala ñu yaakaar ne que muñ ci la bokk. <laughs> tu me maintenant juste par rapport ak Pape li muy wax aussi c'est que nit ñi euh, lu tax ñuy jàpp ni jigéen góor vers jigéen la parce que ñoom dañu jàpp ni violence rek tant que dóor amu ci wala ay séquelles alors que te loolu si góor jëm si jigéen lay gën a bëri mm, mm, mais mm, xeet violence yi nga xamante ni sax moo gën a yi nga xamante ni finalement mun na dem ba incitation au suicide wala mu indi la ay maladie incurable ay tension ay jabet ay yenn ay goitre ay mm-hmm. problème wala mu déclencher sax ay yenn façon feebar yoo xam ne dañuy fi ne stress bi moo koy indi tu as vu donc forme de violence boobu la nit yi euh, war a porter combat bi pour mu mun fi deñ parce que tey bu ñu demee ba nit ñi dénigrement forme de violence la tey pour nga prouver ko nit yi nga xamante ne aussi ñoom ñooy man damay jàpp ni euh, dañ si bokk parce que am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy seetaan parce que dañuy gis nit mu dóor ko ñu fataat ko ni que muñal ko mhm. mu defaat lii ñu defaat ba mujj mhm. gi mu rey ko mhm. après ñëpp di wax fekkante ni y avait des signes annonciables am na wañ kii na nit ki fexe na comme ni Bijou di daw na ba sonn nit yee ko dugalaat ci loolu ba finalement benn cas bu moom naa du moom dafa dóoranteeg jëkkër ji ba ñu génn ba dem après ñu baabaat ko ba mu delluwaat mujj gi jëkkër ji bu ko dóoraatee dafa mujjee la fañ tu as vu ci premier dóor yi lafa ñuul woon. lafa ñuul woon léegi mu ngi pousse pousse. <laughs> parce que xam nga mënoon na bañ a dem aussi. waaw parce que dañ ko yedd bañ duree jàpp c'est vrai moi au départ j'ai rigolé. je me suis dit lan lan moo tax mu delluwaat. mu delluwaat mais mais parce que dañ lay yedd dañ koy yedd. enfin dafa dafa nekk daal loo xamante ni je pense que nit yi ñoo war a jël conscience parce que tey am na loo xamante ni boo ko bàyyee tout le temps da ngay nourrir yenn affaires yoo xamante ni après am na yenn conséquences yoo xamante ni c'est irréversible. kenn du mhm. mun a dellu si ginnaaw maintenant comme on dit sëy am na muñalante am na ne dafa am yoo xamante ni bokkul ci sëy lislaam nangu ko keneen nangu ko muy ay dóori ki ay saaga ak yeneen mm. et nit yi il est temps aussi ñu jël conscience ci loolu mën a waxtaan ak nit yi ba ku nekk xam ne lii boo ko defee lii moo la ciy mën a fekk mm. aussi beneen phénomène am na mooy ñi nga xamante ni peut-être xamuñu wala ragal nañu ñu am ay nit yoo xam ne dañu dëkkandook ñoom ñuy assister te duñu wax dara par exemple li nga gis nit yoo xam ne ay dëkkandoo dañuy gis ah, nag dañuy dégg ni waaw doo romb ci mbedd mi ñuy agressé nit mm. defoo dara mm. dañ naan non assistance de personne en danger mais mm. tey couple buy xuloo bay dóorante danga naan sama yoon nekku si alors que tey buñ ko rayee yow yaay dem woowi ji police donc mm-hmm. yooyu noonu yëpp aussi il faut que nit yi commencé ko intégrer ñoom mënuñu porter plainte yi ñëw ñu déclenché ñu déclenché action judiciaire voilà et que nit yi daal vraiment Pape Cheikh li may wax mooy ñu ñu mun ko intégrer maintenant beneen bi nga xamante ni am na ci muy euh, boo si subiree violence nga mun ko prouver li nga xamante ni moom mooy association des juristes sénégalaises ñoom soo demee ci ñoom Euh, léegi lépp luy procédure euh, ut ay certificat médical ak yëpp dañ la koy defaral à zéro franc cest à doo ci fay dara parce que am na si ñoo xamante ni dañ naan su ma naree dem uti ji certificat médical 10 000 boobu may aw ma ko mm. mais am na si ay association xam ne boo demee dinañ la jàppale nga am avocat sur zéro franc ñu defaral la tout ce qui attestation de violence yooyu te doo ci fay dara Pape Cheikh voilà donc mu ngoog euh, en tout cas reportage bi nga ci def xam naa dinañ ci ñëw leen lundi prochain puisque pareegul mm-hmm. mais gëstu nga ci gëstu bu am solo waxtaan ci ak euh, ay borom xam-xam euh, daañ ci ñëwaat mais euh, wax ji moom du du pare tout le temps rek dañuy ñaax nit ñi Euh, pour ñuy euh, def ndànk ci ci diggante yi. et di di di muñalante parce que tey euh, comme ni may wax violence psychologique boobu tey jigéen dina wax góor loo xamante ne buy réagir hmm. peut-être réaction bi la ñuy gis fekkante ni moom moo njëkk def forme de violence boo xam ne moo ko poussé à ce que mu def loolu. Hmm. mooy comme li ñuy wax saaga yi dénigrement yeeg xas yeeg hmm. harcèlement yi wala mépris nit ki sax dem na bari ma nit nga xool ko sax mu leer kii dala bañ forme de violence la parce que après yow boo demee di nga dem poser wu ay question la laa def qu'est-ce qui se passe et puis ça t'empêche vraiment de def yeneen affaire yoo xamante ne yaa ngi ko war def mm-hmm. donc yooyu noonu yëpp daal jot na euh, ñu intégrer ko par rapport ak suñu comportement dans la vie conjugale. voilà voilà mu ngoog en tout cas intéressant Maimouna ñu ngi lay gërëm bu baax ci euh, sujet boobu la nga xam ni jëm na euh, ci wàllu droit ak li ñu tuddee violence conjugale